bokk mbokku internet yu ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi dañ koy tàmbalee ak Luc Nicolaï moom nag ginnaaw bi nga xamante ni euh, daal di nañ koy euh, jëlee ca prison bu Saint-Louis daal di koy yóbbu euh, foofu ca prison bu Thiès rek moom nag daal dina tàmbale ak xiifal ginnaaw ba nga xamante ni moom lu mu bëgg rek moom moo di ñu daal di koy libeere rek comme niñ ko defee defeelee Bougazelli ndax moom tamit ay raison de santé moom moo war tax rek ñu daal di koy libérer libéré Conté euh, sax euh, libéré nañ ki nga xamante ni moom moo di euh, Seydina Fall Bougazelli ndax sax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur moom Luc Nicolaï lu mu daal di xam ne rek moom moo di kaawu Seydina Fall Bougazelli moomu moom moo gën a graw kaawam ndax moom nag affaire drogue lañ koy daal di toppee moom sax Luc Nicolaï moomu le ñu ñuy xamal rek moom moo di dafa daal di piqué woon benn crise ni ki démb ci talaata bi ñu daal di koy yóbbu ca infirmerie ci lu la euh, démission Tahib Socé moom le sax euh, ginnaaw ba nga xamante ni euh, Seneweb daal di nañ koy woo moom nag Tahib Socé lu mu daal di xamle rek moom moo di dafa daal di démissionné ci RFM nag ci li ko concerné rek moom moo di dafa jàpp ni collaboration bi dafa daal di jeex ba tax na sax moom Tahib soose moom la bëggul addu benn yoon ci li nga xamante ne ni moom moo ñeel li tax moom démissionné ba tax na sax moom Euh, par téléphone lu mu daal di xamal waa euh, Seneweb rek moom moo di jamono ji euh, nekkul Dakar. xëy na ay fan yu néew euh, dina euh, ñëwaat ci li nga xamante ne nii moom moo di décision bi tax moom mu daal di quitter li nga xamante ne ni moom moo di RFM euh, waaye nag ñu desandi ba tey ci li nga xamante ni moom moo ñeel démission bu Tahib Socé moom la ak ki nga xamante ni moom moo di Ahmed xalifa ñas ci xibaar yu nga xamante ni daal dinañ koy jot rek moom Ahmed Khalifa Niass daal dina réagir ci boobule démission waaye moom Ahmed Khalifa Niass nag nga xamante ni laalewul fenn ak Tahib Socé moom lu mu daal di xam la rek moom moo di TFM ñoom jamono ji euh, ñoom ñu euh, doxal seen liggéey euh, bu baax a baax ba tax na sax ki nga xamante ni sax moom moo di Birane Ndour moom jamono ji ginnaaw bi nga xamante ni moom moo ko jiite rek du am lenn loo nga xamante ni wàllum njuñ njaaj la wala loo xamante ni ay erreur yi nga xamante ni daal dina koy def moom nag dafay daal di jël ay responsabilité am rek daal di liggéey bu baax a baax waaye nag li nga xamante ni moom moo di Sen TV tamit moom jàpp na rek ni que jamono ji tamit ñu ngi ci yoon bu baax ki nga xamante ni sax moom moo di Bougane Gueye Dany moom euh, du bàyyi euh, benn yoon euh, li nga xamante ni moom moo di ay maguy wala daal di am ci ba tax na sax moom daal di wul épargner li nga xamante ni moo di 2STV ak Sud FM ba tax na moom Ahmed Khalifa Niass lu mu ci daal di dolli rek moom moo di ñooñu noonu dañoo war a xool bu baax ñi nga xamante nii dañ leen di recruter lu ci mel ni ay faux prêche ak li nga xamante ni moom moo di faux prêcheurs yi mu mel ni rek ni que moom Ahmed Khalifa Niass yooyu moomu de dafa daal di defaat mëninam rek di gaarawaale ñi nga xamante ni moom moo di ñenn ci ay oustaz wala ay imam yi nga xamante ni moom daa du laale ak ñoom benn yoon ñu wax ci eh, coow li nga xamante ni Barthélémy Dias daal dina koy eh, yëkkati rek moom moo ñeel wàllum terrain yi nga xamante ni dañ koy daal di eh, par parloo foofa ca Mermoz moom nag Barthélémy Dias daal dina dénoncé loolu waaye nag moom daal na cité ay célébrité politique ak religieuse yi nga xam xamante ni na dinañu bénéficier ci terrain yooyu noonu le waaye nag li ci gën a doy rek moom moo di Madiambal Diagne dafa daal di def benn révélation rek bu doy waar daal di cité ki nga xamante ni moom moo moo di euh, porte-parole du euh, xalif général des Mourides moom moo di euh, Serigne Bass Abdou Khadre waaye nag benn xaritam bu ñuy wuyoo ci turu tubaab Diop moom nag daal dina génn ngir défendre Serigne Bass Abdou Khadre fatax na publication ma jamal Diagne boobu rek dafa daal di accuser ki nga xam te ni moo di Serigne Bass Abdou Khadre rek ni ko dafa daal di recevoir rek neuf hectares ci li nga xam te ni moom moo di suuf yoo xamante ne ni dañ ko daal di def ci titre date 1861 DG ci li nga xamante ni moom moo di périmètre bi nga xamante ni moom moo daal di abrité euh, camp euh, militaire bu Leclerc en guise de don euh, présidentiel moom nag ki nga xamante ni moo di tubaab Diop loolu la daal di xamle ba tey ñu desandi ki nga xamante ni moom moo di Serigne Bass Abdou Khadir moom nag dina jàkkaarloo ak presse bi ni ki tey bu 16h jotee fële ca résidence mu Rassoul foofu ca Touba. xibaar boobu nag waa Sénégal ñoom ñoo ko daal di fësal. ñu wax ci ki nga xamante ni moom moo di Karim Wade moom Karim Wade moom la daal dina jagleel euh, gouvernement bi euh, lu toll ci 5000 euh, kits yoo xamante ni dafay permettre ñu daal di amal ay tests yu gaaw ci lu ñeel Covid 19 bi le ba tax na sa kit yooyu noonu ñu ngi ko daal di fabriqué foofu ca Corée du Sud. cérémonie bi nag mu ngi daal di amee woon fële ca ministère de la santé ñoom nag daal di nañu jot li nga xamante ne ni moom moo di kit yooyu noonu. Euh, ni ki euh, démb ba tax na sax euh, moom Karim moomule geste bu mu daal di def rek dafa daal di ñeel li nga xam te ni moom moo di xeex ngir li nga xam te ni moom moo di Covid 19. ñu jeexalee ko rek ak situation du jour ci lu ñeel Covid 19 bi la fii ci Sénégal ba tax na 1205 tests la ñu daal di amal rek Sénégal daal di ci enregistré 124 cas yoo nga xamante ne ni daal nañ koy déclaré positive mu nekk benn taux de positivité bu 10 virgule 2 pour cent ci 124 yooyu nag mu am 109 cas yoo xamante ni ay cas contact la ak 15 cas yoo xamante ne ni ay cas transmission communautaire la nga xamante ni daal nañ koy répartir ci. mbaaw daal dina am 4 géejawaay daal dina am 2 Pikine daal dina am benn yëmbal daal dina am benn maris benn Grand Yoff aussi am na benn euh, Yarax daal dina am benn Jëppal am na benn Ziguinchor daal dina am benn Touba nag daal dina am ñaar ba tax na sax euh, nombre de guéris yi mu ngi toll ci 76 euh, nombre de décès yi jamono ji nag Sénégal daal dina toll ci 52 décès jamono ji nag ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk sous traitement mu ngi toll ci 1702 bokku internautes yi cant ngërëm ñel na leen di lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci su yeneen i xibaar